ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد السلام عليكم بوكي تيلا ديبير ñaar fukki fan ak ci weeru diggiw tabaski ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppook ñeenti fan ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak ñett bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon dibéeri tey ji rafet na ci lépp ba mu des ku ca watu walla ku ca tàggoo ñaanu bis bi yow yàlla mi aji wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati sunuy xol jëmee ko ca sag topp la allahumma musarrifa alquluubi sarrif quluubana ala taacatik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na laysa almuminu alladi yasbacu wa jaaruhu jaaic nekkul aji gëm waa ji nga xam ne day lekk ba regg te ab dëkkandoom di xiif xadis bi Buxaari moo ko nettali mudda salaamaka bi xayri wuddi liman ma ni la saakakati mudda salaamaka bi xayri wuddi liman ma ni la saakakati